jërë ngeen jëf ci seen àndina ak la meilleure chaîne di TV mbokk yi ñu ngi leen di di leen kontaane bu baax a baax ci àndin beeg wéetaliku aussi ca xam ni miin ngeen ko ci réew ko ci rédaction Senbuzz ñu baaxoo ak moom lépp loo xam ne actualité la léeg-léeg ñu ciy ànd ak moom muy suñu maman Selbé Ndom di li waral ñuy am mbégte beneen yoon maman Selbé ci am ak yow jotaay xanaa rek pour commencer comme niñ ko baaxee ak yow pour commencer dañ lay jaajëfalaat bu baax a baax ci dalal beeg euh, disponibilité bi nga xamee ni saa su ne waa seen buzz euh, soxla ko nga may ñu possibilité pour ñu am ak yow jotaay. waaw ba tey di wax aouzu billahi min asheytaani rajim di waxaat na aouzu billahi rajim bismillahi rahmaani rahim hmm. di sant yàlla rek julli ci yenent bi sant Cheikh Ahmadou Bamba jaare sëñ Muntaxa jaare soppe bi nga xam ne kenn du ko bàyyi muy Seydi Mouhamed Moustapha si di leen ziar di àdduna bi seen bës mooy àdduna bi ndax ñëpp a koy seetaan. fu nekk hmm. lañ ma woowe naan ma ñu ngi seetaan. seetaan nañ la ci seen bës. Mm-hmm. kon di leen ziare ak am ak Baye Sikim. jërëjëf di leen jox seen wàccuwaay bu baax a baax. jërëjëf Ndao ñu am mbégte lii actualité jamono ji bokk na ci ginnaaw bi nga xamee ni annoncé nañu lii di mbirum Sweet Beauté muy dossier boo xam ni dafa doxoon ci diggante Adji Sarr ak Ousmane Sonko bi ñu annoncé ni chambre criminelle lañ koy attee ba léegi ñu bari ci askan wi dañ nekkee njàqare ndax jàpp ni xëy na dossier boobu mën na yee fitna ci réew mi bi ñu annoncé ni chambre criminelle fa la di mujjee Euh, nan nga ko jàngatee. vraiment ma am lu ma naqari trop. ma mm-hmm. am lu ma naqari parce que chambre de euh, criminel. Mm-hmm. loolu dafa ëpp vraiment ëpp na ëpp na ëpp na. ëpp na ndax euh, loolu xam nañ ne def nañ ko mais day yee na ci réew mi. Mm-hmm. ndax démb Kër masaar gis naa mbooloo moo xam ne maanaam dajaloo nañu te fi ne la jeunesse yëpp. genn wàll gi yëpp Ousmane sonk la ñu àndal. mu nekk lu diis waay lu diis lu metti loo xam ne da ngay xalaat luy ñëw parce que décembre bi suñu borom dafa def ma xëye xëye daal di taal sondeel mhm. mu am fu may tëdd ci sama kër foo xam ne bu ma affaire yi sonle rek damay daw tëdd foofu ndax ci laay nelaw mhm. yàlla seede na ko dama gis armel buñ tabax ba pare kon sénégalais bu leen dara bett mhm. man nag bu ma sañoon wax dëgg yàlla bu ma sañoon ca justice bu njëkk ba dem justice jàkkaarloo ba ci lay yem parce que loo xam ne day yee fitna tamit daal moom vraiment métti na métti métti na. Hmm. suñu xel daluñu si ñi xam ne suñu doom yi nekk ñu fi. Hmm. ñi fi seen doom nekk sax maanaam ñu ngi xalaat jaamaarloo ndax waa Sonko yi nee nañ du dem. Mm. te chambre de criminel buñ la buñ la fa woowee boo demul dañu lay dañu lay jëli mu nekk fitna boo xam ne Sénégal mu ngi ci diggante. dund ak dee daal. fi nekk nii waaw. alors ñu bari ci observateurs yi jàpp ni bu ñuy xool ci aspect politique bi moo dina daal mbir la boo xam ne mbirum politique la dañ bëgg a nasaxal wala daay doole kii di Ousmane sonk ngir que mu bañ a nekk candidat ci 2024 euh, ndax noonu nga ko gisee. pourtant fan yi euh, photo Ousmane sonk mooy affiché rek saa yu ma tëddee rek yàlla dafa may woon dafa am lu ci xoosu ci suuf dafa am lu ci xoosu. Hmm. loolu jaaxal ma trop. waaw parce que euh, président Macky Sall balaa ma doon président dama doon gis photom complet mais bi yoon daal ma fan yi moom xam naa ne Sonko rek la ñuy wax moom c'est sûr et certain. Hmm. man nag du Macky daf maa defal juróom. mu nekkoon defal dong la. kon banaa Macky bu yàgg ndax defalu ma dara du passeport diplomatique du du oto. du biir màkka du dara. mais yàlla moo ma def ab waxkat may wax àdduna bi di ma déglu may wone lu leer àdduna bi di ko déglu yàlla woon na ma président Macky Sall. mu yore drapeau vert jaune rouge. jaar nii yore drapeau vert jaune rouge. ma gisaat Ousmane Sonko mu affiché. foto boo xam ne dafa xoosu mhm. suñu borom wan na ma loolu dee moom damaa njëkk a jël sondeel mel ni chrétienne boo xam ne mhm. daa am ku dee may taal sondeel mhm. loolu moom gis naa ko ba taal sondeel sondeel ba jeex ma indiwaat beneen sama doom bi ne ma yaay sondeel bi yaa ko taal ma ne ko waaw d'accord ca tëdd après ma gis armeel nay leer na selbe àdduna bay koy déglu selbe dama naan amul kenn ku ko bañ Kesel ba it du topp nit ndax da koy may dërëm. Hmm. su ma doon topp tey Macky Sall laay topp pour mu may ma déedéet. Hmm. topp ma Macky Sall pour mu may ma. d'accord ba ma waree may mayu ma. Hmm. nguuram day waaj a jeex su ma sañoon damay dem. maanaam ca koo xam ne xëy na bu amee nguur xëy na danaa ci am dara ndax man nguuru Macky Sall ci dara. waaye ginnaaw gisaguma Ousmane Sonko yéeg man léegi sama affaire dama koy jaay nañ ma fay. nañ ma fay kat kat bu baax nañ ma fay nañ ma fay ma toj dëkk bi nañ ma fay. Hmm. buñ ma dootu sama affaire dama koy jaay dootuma waxati nit dara. d'accord dama koy jaay. pour que pour que nga mën a wax Ousmane sonk li nga gis ci photo beeg yooyu loolu nga bëgg a wax. waaw nañ ma fay. d'accord nañ ma fay. Hmm. ma wax ma toj dëkk bi nañ ma fay. dama waxoon. Hmm. ci Ablaye Wade aw ma ca dara. wax ci Macky Sall awma ci dara balaa maa waxati keneen dañ may fay. pour muy leer nañ ma fay mais bëgguma doomu sénégalais yi génn ak sénégalaises yi bëgguma xeex bugguma reyante Ousmane Sonko nee na du dem man su ma doon moom damay dem yëf yi leer benn yoon ma xam fu ma féete doy na waar mais ma fàttali maman Selbé bu ñuy xool ci aspect judiciaire bi maanaam ci mbiru yoon moom dafa jàpp ni luñ ko war a mën a àttee amul amul ay éléments yu daje bañ war a mën a toog sax muy expliquer lu jëm ci mbir moomu ndax mbir moomu mbiru mbiru politique la moom aussi looloo tax xëy na bëggu ci yàbbi ci mbir mi. xam nga dama di jigéen te ah. samay waajur dañoo génn àddina. Hmm. yoruma borom kër. reyante ba am sama kër. li ma ci xam yëpp bu ma ko waxee loxo dina jëm ci dossier bi. barke Seydina Mohamed. ci dama ko seet avant dama ko seet avant xam ci lu bare bare bare bare mais man li ma ñor mooy xale yi bu ñu génn Ousmane Sonko su mënoon a rek daal di dem taxaw coow ba a am ndax fiñ ko yóbbu baaxul de fiñ ko yóbbu nii chambre criminelle ndax gis ngeen kii bi. certificat médical bi li liñ ci wax huit heures xaw ma quatorze heures xaw lan côté yooyu dafa am ay fichier xawma ma lan ak lan ak lan ñoom daal nañ ñu dimbale ñun fi mu ne nii sunu sunu euh, bopp yi dem nañu suñu nopp yi dem nañu sunu bët yaa ngi wàññeeku dañoo sonn wax dëgg yàlla ngir yàlla. Hmm. boo ñu xamee ne mënta ñàkk ba mënta ñàkk te Macky Sall mën naa teg affaire yi ci suuf. Hmm. mu teg ko ci suuf bu ñu xamee ne. faaw mu dem wuy ji gars yi nee nañ ma ah, Ousmane Sonko di wuy ji man de tiit naa. d'accord man mi gis ay armeel hmm. tiit naa waaye man bu ma sañoon lii yëpp du am. d'accord bu ma sañoon. Hmm. déggoo li ma la wax ñaar laa gis. Macky Sall yore drapeau vert jaune rouge daw jaar ni woon ma ginnaaw nii di dem continuer nii. Hmm. mais mi ngi drapeau vert jaune rouge. lu vert li moom leer na gis naa ko. Ousmane Sonko photo bi ñu affiché. Ousmane Sonko laa gis jëxërën man Macky Sall mayu ma dërëm Ousmane Sonko mayu ma dërëm keneen ku dul kooku xanaa nit woo ma ki samay numéro maire seetal ma ma seetal ko aw ma kenn xanaa Wally Seck moo ma fi may ceeb ak suukar yéen seen kanam du dëgg kon maanaam aw ma kenn koo xam ne rek damay taxaw Macky Sall defalu ma dara te mu doon président de la république su ma sañoon mm. damay am président boo xam ne maanaam dafa may jox jàppale ma ndax damaa nekk jigéen soxla ku ma jàppale kenn jàppale wu ma ci réew mi. Hmm. kon nag li ma gis laa wax gis naa Macky Sall yore drapeau vert jaune rouge daw di jaar nii loolu lu bees sàq la. gis naa Ousmane Sonko photo ne photo bi dafa xoos ci suuf daa xoos. setut hmm. hmm. loolu moom yàlla woon na ma. alors bëgg naa jéggal nag d'accord alors maman Selbé bëgg naa aussi xam vraiment sa xalaat ndax ñu bari dañu gis ni ñetti at ngi nii daanaka coow lu gën a bari ci penc mi lu jëm ci mbiru politique dossier wu Adji Sarr Ousmane gis na mu ngi yee fitna boo xam ni xëy na jaroon nañu teg mbir mi ci suuf ndax amoo ci gis-gis boobu yow. man bu ma sañoon Ousmane Sonko ba mu amee chance jàkkaarloog euh, euh, Adji Sarr rek liñ ko laaj na ki tontu ñu génn ci mu mën a dem feneen man loolu laa gisoon man te bu ma jegewoon Ousmane Sonko. Hmm. dinaa ko ne keroog. keroog bu tontu woon du dem chambre criminelle. nee na moom dañ dafa jàpp ni dañ ko àtte ba pare dañuy def ay kii rek pour ay kii rek pour tëj ko moom lu tax. du tontu non duñ ko tëj duñ ko tëj lu tax ñu koy tëj kii du ginaar bañ koy tëj. Mhm. Ousmane Sonko du ginaar bañ koy tëj bañ koy njëkkee woo àdduna bee màbb taxaw ne Ousmane Sonko di dem dem brigade de recherche taal pono yëpp ci dëkk bi jour boobu métti na ci man mi nga xam ne sama doom dafa dem Casamance nekku fi kon man du ma bëggaat lu mel noonu ci réew mi. man bu ma sañoon sax lépp dañ koy bàyyi mu sedd sax man man moo ma gënal jàmm am jàmm am mais billahi lazi laa ilaha illa huwa Sonko bu wuy nguur hmm. opposant mën ta nguur nguur gee koy ëpp doole hmm. ay waaye nañ seet yàlla yërëm askan wi yërëm suñu njaboot yi nga xam ne dañ leen a ëmb juróom-ñeenti weer di yaakaar suñu doom yi tekki te armel moo am ci décembre bi armel moo génn ak sondeel yu ñu taal man nag taalibi Sëñ Tuubaa laa moom kooku moom mën naa ko waaye man li war a ñëw bëgguma ko hmm. man bëgguma ko bëgguma ko bëgguma ko bëgguma ko te duma ko bëgg damay wax jàmm laa bëgg salaam laa bëgg président Macky sàll boroom xool bu baax la hmm. Ousmane Sonko aussi na bàyyi wax ji muy wax toujours Macky Sall moo ma def nii Macky Sall nangam mais Ousmane Sonko dégguma benn projet boo waraa am ci senegal gi nga xam ne bëgg nga ko dégguma Ousmane Sonko ne bu ma toogee dinaa def lii. mais mooy ko mu def loolu ndax. dafa waaw mais na na bàyyi Macky Sall moom li ko tax a jóg na ko tax jóg waxal li nga xam ne moo la tax a jóg pour ëllë ëllëgee bu la yàlla defee li nga bëgg a doon ñu xam yow say projet ci réew mi xam nga li mais na wax ay projet mais waxam yëpp Macky Sall def na ma lii diw def na ma lii non non non yow commencé na nemmeeku yow waxal li nga xam ne moom nga war a def moom nga bëgg. Hmm. chômage bi hôpital yi yaa ngi dégg dof yi ci mbedd mi taalibe yi waxal say projet mais quand même na Ousmane wax projet bi mu fi commencé wax ba tey lu mu wax conférence Macky Sall nee na nii. waa damaa jóge Casamance jël avion nanga mais na wax ay projet senegal yi mën ko bàyyi xel ne kii kat li muy bëgg ba su bu ko yàlla defalee su nuy xel mën a dal surtout ñun nga xam ne non man gisuma ko man man gisuma ko xam nga man man maa ne Ousmane Sonko Ibadulaay Salihin man kese maa fi wax Ousmane Sonko xayru ummatin uxrijat li naasi maanaam Ousmane Sonko daa julli ba fii hmm. moo tax ma tudd ak Ibadulaay Saalihin hmm. Ousmane Sonko c'est mon frère am na ku ko jege woon di wax may dégg kooku la tax ma xuloog moom mooy hmm. dafa maa wax ne ma bés bu ñu dee moom moo may dugal na te moom hmm. ma daal koy gedd ko mu naa ko bàyyi mu ñëw fii duf ndax réew mi dañ may sóoraale xam nañ Selbé mooy kan ak lu ma coupable ak lu ma capable xam nañ kii je yàlla daf ma woon dama am xam-xam bu wóor bu leer. bu ma teg ci loxo jaam ni kon maanaam Ousmane Sonko na wàññi wax ji tey jëf na wàññi wax ji fi mu ne démb ba mu waxee ne gasal naa sama bopp amee def naa sama testament. Hmm. ñaata nit ñoo nekk Bàqe ñaata nit ñoo nekk Yoof ñaata nit ñoo nekk feneen ak feneen suuf inna ardallahi waasia loolu du sa wax. yow mi bëgg a yore réew nga naa naan gas naa sama bàmmeel di indi loo xam ne day yokkaat xar mi karaw. Hmm. naan man damay damay dina ma dina ma rey wala ma rey ko. loolu bugguma loolu bugguma loolu dégg loolu li ma la bugguma loolu bugguma loolu suñ ko woowee suñ ko baalul bàyyi lépp mu sedd buñ ko woow ne wuy ji ndànk rek lu am fekk suñu borom subhaanahu wa taala rëddoon na ko balaa moo jug ñi koy waxal nii yëpp gis naa koo xam ne nee na xaw ma kooku kooku dafa amati dara na xool ñu nekk ci ginnaawam ñu koy jaay tey bu jàpp di am ña koy jaay ak sëriñ say garaaw garaawlu mënuñu tous moom ci boppam moo bëgg a doon président na def yëf yi kii bëgg a doon président ñu baal ma nag parce que Macky Sall mayu ma juróomi dërëm mayu ma oto oto laa gën a soxla soxla naa lépp li nit ñu bëgg laa bëgg yaa ngi dégg waaye na def ah lii ko dëkk bi manqué na nangam. Mhm. bés bu ma doonee président incha allahu rabbi mhm. dinaa def nangam. soxla nañ lii soxla lii. ah li fi nekk de su nekkoon maa fi nekk nangam laa koy doxalee man su ma doon bëgg réew maa gën a bëgg Ousmane Sonko doon présidente de la République du Sénégal. d'accord ndax. Ah, mhm. ci li fépp la baxe am na ñëpp bëgg a def lu baax ndax dañuy dee bàyyi ko fi. te hmm. lépp loo def lu baax boo demee sa armeel. Hmm. foo nga koy fekk. am na solo kon man bu ma sañoon. Hmm. Ousmane Sonko day changer parole. bu yàlla nee day doon président changer ni muy waxee daal changer ni waxee mais lépp lu mu wax micro bu mu téye rek Macky Sall rek lay wax. gouvernement Macky Sall xaalis bi nii na wax man bu ma ko doonee gëm leen ma incha allah. lii manqué na fi. war nañoo def lii. moo hmm. gën moo na xëy na yàggoo dégg discours yi nga xam ko bi di ko bombardé ñenn ñu aussi di yëkkati ay kaddu sax di wax ku ñu nu seetkat nga nga koy yëkkati aussi loolu noo koy jàngatee. xam nga fii bu ñu naan seetkat Selbé Ndom moo tax ñu naan seetkat moom mi a xam mbër ma war a daanu ndeyjoor wala caamoy wala mbër ñaari mbër yi war a bër te bëreeku ñu deret ji tuuru wala ñaari mbër yu war a bëree mu dëpp kanam ga taq suuf selbe la du dëgg kon maanaam li ñu wax rek ci surat najm afatumaaruunahu alaa maa yaraa du duma weranteeg nit ci benn seetkat wala ab sëriñ ci gis-gisam man gisuma loolu man li ma gis moo supérieur ay hélico mm-hmm. bàmmeel buñ tabax laa gis ci décembre bi janvier ñëwagul ma taal sondel man te duma chrétien damaa taal sondel sama doom ñëw na ma yaay sondel bi yaa ko taal ma ne ko waa ah. sondel boobu jeex ma taalal beneen sondel te xam ngeen ne sondel baaxul. d'accord du jàmm. Mhm. kon maa ngi ñaan président de la république moom mi nekk ci nguur gi. Mhm. ngir yàlla. Mhm. nañ seet beneen anam bu mënta ñàkk. d'accord ba mënta ñàkk. nañ ko defee nu mu rafete kenn bañ a yëg. moo gën réew mi. yeneen dee di amaat armeel laa wax man. waxuma ay hélico ay hélico ay ay foo la ay hélico ay foo la hélico du fi am. Hmm. armeel moo fi am armeel moo raw hélico. maanaam ay nit ñu ñàkk eh, nit moo koy dawal mais armeel laa gis man buñ tabax ba pare. loolu lu muy wane maman laa ilaaha illallah armeel kat ah lu tax man ma taal sondel te musuma ko def. wax ñu ñu xam loolu duma ko café sondel baaxul. d'accord. gis armeel xëy taal sondeel ñu dee ñu rek genn wàll gi dañ leen taal ay sondeel di leen ñaanal yàlla te man bëgguma loolu ci sama réew man dama ne maay Sénégal xale yu jigéen yi maa leen jur xale yu góor yi maa leen jur barki Seydina Mohamed man loolu laa wax jàmm laa bëgg ci réew mi Ousmane Sonko nag ma baal mon frère changer le discours Macky Sall moom kenn déggul mu wax ay ñoñom rek ngay génn dégg ñu naan dem nañ fii dem nañ fii dem nañ ngir yàlla d'accord bëgg nguur jarul loolu. Mm. nekk ci nguur tamit jarut loolu. Mm. maa ngi ñaan yàlla subhanahu wa moom mu bind Sénégal. Mm. bind ñun ñii nañu yàlla musal ci darajay Seydina Mohamed. très bien am na solo. bugguma coow. d'accord bugguma xuloo ah, bugguma xeex. très am na solo maman Selbé